aca arbitre sifflé na deuxième demi-finale baa ngi noonu diggante Mamadou Gaskel Diame ak Toubacouta Mamadou Gaskel Diame champion de palmarès moom ngeen jàkkaarloo Toubacouta Bourou Saloum moo wan gannaaw yee Boubou Saloum koy faxat Gaskel jël na tànk ba plaqué na ko génn na war na ko nangu Touba daan na ko Touba daan na Gaskel Jamme yee waaw waaw quelle ambiance quelle ambiance